niki démb lañu ko daal di interpellé ba noppi yóbbu ko fole ci division des investigations criminelles di dikk moom mi di militant wu Pastef di yooyu ci turu Alassane Fall jamono jile nag kon mu ngi ci dans de beaux draps noonu la ko naataange nekk ci Walf Quotidien di xamle ñooñu nag di ñu xamal rek ne gannaaw audition am. dañu ko daal di placé en garde à vue la wara loole nag moo di outrage à magistrat lañu koy daal di toppee maanaam daal kàddu yu jéggi jëmee ci ay magistrat moom ndaw li di Alassane Fall bokk ci parti boobee di Pastef kon loolee waral ba ñu daal di ko placé en garde à vue foofee ca dikk nik ëllëg ak jàmm kon ñu ngi xaar rek ñu daldi di ko déféré foofee ca parquet bu procureur borom robu noir bii di maître Cheikh Khoureyssi Ba moo daal di xamle lu nu mel. bu nu sukkandikoo ci avocat bi nag moom milieu di Alassane Fall dañ ko toppee nag na daal dafa yëgite ay kàddu yoo xam ne rek dafa jiggi dayo wala sax kàddu yi jiggi la jëmee ci procureur de la république ak tamit président bu audience bu procès Bah Diakhaté euh, procureur bi nag euh, dafa visionné vidéo bu ni mel ci réseau social bi di TikTok euh, bu Alassane Fall moom nag mu ci yëkkati ay kàddu yu jéggi dayo jëmee ci magistrat boobe ak président wu séance d' boobe loole nag nga xam ne moo doon dossier wu Bah Diakhaté ak Imam Ndao Euh, loole nag waral ba mu daal di autosaisiru ci noone nag kon ci la ñu ko daal di eh, tege loxo gannaaw ba mu joxe ordre euh, loole lañuy eh, liir ci nattongee nekk Walf Quotidien mu nekk na kon eh, jamono jile guddi yu bër setagul ci ndaw loole di Alassane Fall nekk militant parti bile di Pastef yëgi tey kàddu yu jéggi jëmee ci procureur de la république ak rek ki nga xam ne moo di magistrat ba doon siège rek doon jiite audience ba jaxate ak kii di imam ndaw gannaaw ba nu leen tegee loxo ci kàddu yi ñu yëgitoon rek jëmee ci kii di Ousmane Sonko jërë ngeen jëf mbokk yi li ma doon xibaare ci biir vidéo des xaar ne ana fan la war nañ ci di mu jéggi gëtam ak moom mi di Alassane Fall laata loole woy leen di like di abonné ci chaîne chaîne ku déggan ci page bi te abonné ko noo ngi lay ñaan nga abonné sa cloche